ndeysaan waay laay ah ci réew mi ah gaa bi deeti ci réew mi ndeysaan gaa ci réew ci réew mi Sénégal du réewu jaama ah, di réewu jaama la doy na ma bilay doy na ma di sant ku gis ka la dang koy wax yoo kon baa nga woone ko di sant kara moo ma neex ci réew mi son jaajëf waay laay a réew mi teeti naa ci jàmm ah ndeysaan Macky Sall di Macky moo ma doy ci réew mi ah jaajëf waay jaajëf doy na ma bilaay doy na ma di sant Gaskala doy tànk koy e wax yoo kon baa nga woone ko waaw waaw du maa ci moom a doy ci réew ci réew mi ndeysaan Macky Sall billaay yaa ma doy ci réew mi man doy na ma Macky doy na ma ndeysaan ko gis ka la koy daan koy wéyoo kon baa nga wone ko Macky Sall bilaay di yaaju doy ci réew Sénégal réew Sénégal a réewu jaamalaay jërëjëf waay yaakaara gaa ñi naan Macky Sall yàlla sama kee gaa ñi naan Macky Sall woññe Touba gaa ñi naan Macky Sall dembe Sokone gaa ñi naan Macky Sall dembe Joti gaa ñi naan Macky Sall dembe Jaafaan gaa ñi naan Macky Sall dembe Kaolack gaa ñi naan Macky Sall dembe Fatick gaa ñi naan Macky Sall dembe Dakar gaa ñi naan Macky Sall Macky yow di yaa ñu doy fii ci réew mi doy na ma bilaay doy na ma bisaan ma gis ka la doy da kuy wax yow kon ba nga wone ko bisaan du ma ci moom a doy ci réew mi Macky Sall yàlla yàlla boole ko mi la kolega goone deyaajo yàlla booleel tey ma woy la yay meeru kaaraan gomis boy yow la ñu yàlla booleel ñu ni ñaan ñoo ngi ñaan fan bu gudd toog ba weer ba yaaraama vraiment jaajëf teesi naa ci réew mi yoo gaal gi teesi naa ca kaaram gomis boy yàlla yàlla yokku leen ziyaara uh-huh. bi aha gomis doy na ma isaane gomis dox doy na ma bilay doy na ma alay ba bilay doy nga dox de ma wile na yena jara wo ci duniya Sall mi daal di réew karanga karanga ak ay jamono na karan kaji nan maki salo kala sabage kaji nan maki salo tembe tuba kaji nan maki salo tembe soko kaji nan maki salo yala pasi kaji nan maki salo tembe jafa kaji nan maki salo kata kata ñu naan Macky Sall ak ma fa jox ka bëgg waa Kaaxañ am na li nga xamante ni moo xew si kër gi yéen ñëpp euh, déglu ngeen ko seetaan ngeen ko am naa yaakaar ne tey moom kenn amul teel ma sama dàll amul teel ma sama sër man instant yi ma toll damaa nar a dem ba jeex parce que émission bi moo nekk euh, émission tànn ci bu la neex ngeen àndal ki nga xamante ni moo nekk euh, seen xarit seen doom day di DJ Diassé di Ahmed Diassé moo nekk fii si kër gi tey nag invité yu ma am invité yu garaaw lañ que lii mu ngi soog am si kër parce que instant yi dama gëj naay fecc ah mais sama yaram moo tàng ba mënuma ñàkk dem parce que lii dafa neex parce que tradition la parce que ñu mënuñu wane suñu maam yi lii rek euh, la fi nekk woon parce que instant yi dafa nekk loo xam ne damay fàttali au moment que nous étions des enfants euh, suñu maam yi ñu doon def guitare tama fecc yi reetaan bëggee mais léegi dafa nekk loo xamante ni lii lu baax la parce que dafa jot ñuy def ko en direct de télévision Karang xam ne cosaan bi mu ngi dox ba léegi parce que dafa nekk loo xamante ni lu am sens la lu nar a jëmale Karang Kanam kon ñu ngi woo kullu Karangoise képp koo xamante ni am nga ngénte am nga ceet seetal ki nga xamante ni moo nekk fii li Kouyaté soo ko laajtee fii si Gàmbi la fu mu nekk nga jël ko parce lu may def neex n lu may def mën na ko Euh, gaal gi teer na gaal gi teer na fii si diwaanu Sénégal Macky mooy réew mi quoi nan nga loolu woy boobu da ko bind préparé ko wala da koy jëf inspirement nga koy joxe quoi. waaw ndaxte euh, Macky. Mhm. ndeysaan man mën naa ne. Mhm. lii ko yàlla jox dama ko yàgg a ñaan. Mhm. depuis booba xalaatuñu sax dina doon président. muy premier ministre. d'accord. ci laa ko xool mu doy ma. li muy def neex ma. d'accord ma xam ne kii ku am fulla la. ma xam ne kii ndeysaan ma toog am mel ni li ma dee naan kii dana mos a yori réewu Sénégal. d'accord dama gis ne bu ko yoree rek. Mhm. Eh, man sama gis-gis sama am xam naa ne réew mi dina dem kanam te réew mi eh, dina bari jàmm lool. incha allah. Eh,